madame euh, Ndeye Comba Touré Kane ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay nuyu Elisabeth. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey ci dernier numéro invité matinal bu atu 2020 kii directeur bu université bu Kaolack doon professeur titulaire des universités en bactériologie ak virologie tey madame Kane ñuy wax ci li nga xam ne moom mooy taux euh, Covid bi ñu am fii ci mim réew tey ndax mën nañoo wax Sénégal jamono ji ñoo ngi ci deuxième vague. waaw xam nga waxu deuxième vague ak loolu mi ngi dépendre dépendre rek ci nit ki nga xam ne moom mooy interpréter. Mm-hmm. Euh, dëkk yu bari ñu ngi wax deuxième vague pour pourquoi ñu wax deuxième vague parce que toll woon nañ ay jamono yoo xamante ne yi kaaw Covid yi dafa wàññeeku woon wàññeeku woon lool. Mm-hmm. lool moo tax bu fekkente ne da ngay da ngay xool nga gis ne yéeg nga ci kaw. wàcc nga ba nga xam ne bi presque amuloo après nga jogaat soo jogaatee loolu mun nañ ko tuddee deuxième vague. Mm-hmm. mais ku nekk ak ni nga koy interpréter. mais li nga xam ne moom moo am solo. moom euh, il faut nit ñi jóg ba mën a xeex ba nga xam ne vague dootu fi am wala ay cas yu yëg ci kaw dootu fi am lool moo jar def. Mhm. waaw wax nga ko anticiper nga ko muy euh, interprétation tey jii euh, jamono ji nga xam ne ñenn ñi nee nañu deuxième vague warul euh, warul doon benn sujet bu ñu waxtaanee fii ci Sénégal tey lan mooy vague exactement pour ñu ñuy déglu ñu xam ban moment wala interprétation la laaj ak loolu. vague boo ko déggee moom mooy nga xam benn feebar boo xam ne bii toll na ci benn benn benn jamono boo xamante ne bii bëri na bëri na ba ci kaw. Mm-hmm. après nga jékki-jékki nga gis ne wàcc na wàcc na ba jeex presque nga xam ne toog nga ay fan yoo xam ne déggatoo ko wala nga xam ne daal liñ ciy dégg loo xam ne li amul solo après nga jékki-jékkiwaat nga gis mu jógaat. su jógaatee loolu mun nañ ko tuddee deuxième vague. Mm-hmm. te loolu loolu la nit ñi di tuddee deuxième vague mais ku nekk ak ni nga xamante ne bii yow noonu nga koy jàngatee noonu nga koy waxee. Ah. te tey ñuy wax benn souche euh, bu bees bu virus bi ñu ne dafa am coppite ndax li ni mel euh, du am dara lu mu gàllankoor ci vaccin bi nga xam ne commencé nañ ko expérimenter déjà ci yenn dëkk yi. waaw xam nga nag doomu jàngoro bi nga xam ne mooy joxe feebaru coronavirus. Mm-hmm. dafa bokk ci benn famille boo xam ne famille virus yoo xam ne ñoom dañuy soppaliku ñoom loolu loolu lañ daan xamee. Mm-hmm. donc léegi bu nit ñi dee def vaccin ci maanaam fe doomu jàngoro yooyu dañuy jëlaale loolu nga xam ne mun na soppaliku moo tax dañuy def ay vaccin yoo xam ne yi day laal fu baree bëree bëri ci virus bi. Mm-hmm. nga xam ne bu bii soppalikoo yeneen yi mun na mun na agir. Mm-hmm. donc noonu la defaree vaccin yi nga xam ne. ñoom la ñuy euh, jagleel xeexu virus yi nga xam ne ay virus à ARN lañ. Mhm. madame la recteur tey jii virus bi gis nañ ne yàgg na ci àdduna bi ndax virus dafa am benn durée déterminée wala virus mën nga dëkk ak moom toute une si virus mën nga dëkk moom mën nga dëkk moom et là virus bi buñ defee ne dafa nar a dem léegi de demagul léegi mais di nga dem ak moom ba nga xamante ne bii da ngeen di ànd yéen ñaar ngeen co-évoluer ngeen dëkkandoo. loolu par exemple su fekkente ne vacciné nañ nit ñu bëree bëree bëri même bu fekkente ne virus bi mi ngi fii buy dal nit ñi du leen dal dootul nekkati problème boo xamante ne bi problème de santé publique lay nekk comme ni mu nekk nii wala un problème économique wala un problème de développement dootul nekkati loolu nit ñi dañuy ànd ak moom dëkkandoo ak mom mhm. muy dem di ñëw parce que virus bi virus boo xoolee. bu bu température yi xawee wàcc bu xawee sedd ci lay gën a jógaat. te mhm. moom ci lañ nekk fi mu nekk nii. tey jii yaa ngi koy wax vaccin bi euh, bu egsi woon si mim réew lan moo war a doon processus bi euh, balaa ñu ko jox euh, ñi nga xam ne ñooy askan wi. non vaccin bi buy ñëw ci réew mi am na ay yoo xamante ne yi war nañ ko teg xam nga vaccin bi nga xam ne actuellement moom la nit ñi di utiliser. Mm-hmm. vaccin bi dañ ko war a denc ci ay température yu yu wàcc wàcc wàcc température yoo xam ne yi moins soixante dix degré moins quatre vingt degré lañ ñan war a garder xam nga mm-hmm. loolu amuñu ko. Mm-hmm. ci lu bëri. ay congélateur yoo xam ne yi ay congélateur yu spécial lay nekk yoo xam ne yi ci température yooyu lañ lay wàcce te loolu boo ko buñu vaccin bi ñëwee il faut ñu am. o congélateur yooyu am oto yu mun a yóbbu vaccin yi ba nga xam ne vaccin yi dina mun a dem fépp ci Sénégal ba nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne yeyoo nañ vaccination ñu vacciner leen ko. Mm-hmm. parce que su réew engagé wu bay vacciné wu il faut ñu teg li nga xam ne mooy équité c'est-à-dire képp ku ko soxla ak foo mënti nekk ci gox goxaat boo mënti nekk ci réew mi ñu fexe ba nga jot ci. Mm-hmm. tey coow li coow li mhm. bëri na ci ñenn ñaa ngi ne euh, mënuñoo defar vaccin ci diiru gu gàtt comme niñ ko nemmee ko am ñu ne yàgg nañ koo defar dañoo ñëw rek tombek bi lépp mbas ñu adapté ko euh, lan lañ ci mën a jàpp comme lecture xam nga fi mu nekk nii science dafa évoluer ba nga xamante ne bii ak xarala yu bees yi ak li ñuy tuddee biotechnologie ak génie génétique. Mhm. loolu lu nekk mun nga ko defar ci diir bu la neex. Mhm. defar bi moom amul problème problème li nga xam ne moom la nit ñi xamul mooy façon ñàkk yu bees yi xam nga nuroowul ak ni ñu daan defaree ñàkk démb. Mhm. façon ñàkk bu bees bi est-ce que buñ ko joxee nit ñi nan la nit ki di réagir après loolu la nit ñi xamagul parce que essais yi nga xam ne def nañ ay essais yoo xam ne mun nañ wax ne essais yu la. parce que si ay trois mille personnes lañ ko def ak yooyu léegi il faut nag buñ commencé ñàkk yi ñu def li nga xam ne moom la ñuy wax ci tubaab pharmacovigilance c'est-à-dire ñëpp ñu ñàkk ñu leen di topp di leen di seet di saytu seen yaram di xool yan jàngat la ñuy am ci ñoom. Mm-hmm. ak yan métit la ñuy am yoo xam ne métit yoo xam ne mun nañ ko lënkale ak vaccination bi nga xam ne moom la recevoir pour ñu mun a xam lan moom mooy conséquence su vaccination bi. mais pour le moment ah, ah. loolu yëpp amagul waaw ndax dal na xel tey ñu ne ñëpp la ñu war a vacciner tey bu ñu doon vacciner priorité bi ci ñan lay euh, nekk. Ah, priorité bi da nga koy jël def ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a loru ci mbas mi ñi gën a loru ci mbas mi moom mooy euh, ñu mag ñi ñuy dund ak yeneen doomu jàngoro te mën a jël vaccin parce que loolu tamit am na ñoo xam ne mënuñoo jël vaccin loolu yëpp dañ koy xoolaale ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat kër docteur yi. liggéeykati kër docteur yi nga xam ne ñoom ñooy jànkonteel toujours ak ñi yore feebaru mbas mi mm-hmm. ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom lañu ñu war a njëkk a ñàkk après nag ngay doog a seet nag ñeneen ñi ngay ñaq ci réew mi donc loolu noon il faut ñu def ko def euh, euh, stratégie de vaccination yooyu noonu après def les populations yi nga xamante ni ñoom ñoo gën gaaw a loru ci mbas mi ñoo njëkk leen a ñàkk pour mun leen aar. wax nga ko sànq ci wàllum matériel tey jii vaccin bi bu fi egsi nee nga wàllum matériel mën na koo freiner ndax loolu rek moo war a mën a doon frein utilisation vaccin bi. non vaccin bi moom mooy nga parce que boo commencé vaccin waroo ko arrêté. Mhm. soo commencé di ñàkk ni il faut vraiment loolu yëpp nga planifier ko seet ñaata dose moom la moom nga soxla. Mhm. parce que ku nekk ñaari dose lay jël nga seet ñaata dose ngay soxla nan lañ koy garder nan lañ koy yóbboo loolu yëpp daal buñ ko jàngatee ba pare après nag nga door cee sóobu parce que booy soobu tamit da ngay seet ci li nga sóobu loo xam ne mën na wéy. Mhm. madame la recteur Sénégal tey euh, gis nañ ne def na ay jéego ci xeexu mbas mi maanaam ci gestion bi euh, tey boo doon apprécier en tant que virologue euh, ban lecture wala nan nga jàngatee taxawaayu Sénégal ci li nga xam ne mooy Covid gi fi nekk bu yàgg booba ba tey. Euh, Covid bi moom vraiment tax na plateau technique yi ñu ñu améliorer leen bu baax ci kër docteur yi. Mhm. waaw mi ngi dem rek gis nga président de la république mi ngi dem Fann inauguré euh, centre professeur Seydi boobu nga xam ne amul léegi lenn loo xam ne lii dina ko war a ñëwee centre yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yi kaw yi donc loolu noonu lu ñuy lu ñuy rafetlu la. mais il faut ñu defaat ay yeneen jéego parce que centre bu mel noonu warul des warul nekk rek au niveau de Fann mm-hmm. dañu war a xool centre yu mel noonu ñu multiplier ko au niveau de toutes les régions régions yëpp ñu am centre yu mel noon ba nga xamante ni bii sénégalais bi fu mu munti nekk te mu soxla ñu jël ko en charge rapidement ak ci anam bi mu gënee mu mun a am loolu noonu ci wetam et defe naa loolu yaa am na benn plan d'investissement boo xamante ne bii pour améliorer centre yu bëree bëri pour que centre yi gis seen bopp bu baax ci plateau technique yu performant loolu tamit lu jare sant yàlla la te mbas mi moo wone faiblesse yi te réew mi mi ngi nekk di xeex ci faiblesse yooyu noonu. nga doon recteur d'université tey jii ci wàllum euh, personnel euh, lan nga ci ñaax. ah liñ ci ñaax mooy yokk yokk yokk yokk jàngale bi. Mm-hmm. gën a jàngale ci anam yépp en plus des médecins ñi ñuy jàngale médecins yi former ay biologistes yu bëri former ay paramédicaux ay infirmiers ñooyu yëpp former daal catégorie yëpp ñu former leen après léegi tamit en plus de ça former catégorie après commencé waat ci kanam mm-hmm. ci njàngale mu ndaw mi njàngale mu suufe mi commencé ñaax xale yi ci filières yi nga xam ne ñooy filière scientifique yi pour que mhm. xale yi mun a jàng bu baax science parce que bu ñu jàngee science ci la ñu mën a ñu mun leen orienté ci ci ci ci ci domaine yooyu ndax ñu mën a assurer bu baax liggéey bi nga xam ne moom lañ soxla ci ci ci wàllu woowu waaw mhm. Madame le recteur euh, de euh, Kaolack, professeur titulaire des universités en bactériologie, virologie Ndeye Comba Touré Kane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax maa ngi lay jaajëfal Elisabeth yow tamit. bonne heureuse année. merci à vous aussi allez au merci au revoir.